njëkk ci fii ci Sénégal dafa mel ni kat ñi nga xam ne ñoo ay candidat ñoom dafa mel ni dañ leen nar a nasaxal ci tirage au sort boo xam ne baaxul kon tamit mënuñoo wëy di am position boo xam ne baaxul ci loo xam ne kat euh, yoonu kenn nekku ci ci loo xam ne ci processus la kon ndogal bi nga xam ne conseil conseil jël na ko tirage au sort bi nag article 7 moo ko réglé article 7 waxul ci li nga xam ne mooy deuxième phase régulation wala sax régularisation article 7 day wax ci li nga xam ne mooy phase bu njëkk bi kon nag procédure bu nga xam ne dañ koy daal di euh, xoolaat waaye tamit fexe ba nit ñi mën a am tolloole ak it gën a am équité ci processus électoral bi loolu moo taxit nag ni ma nekkee candidat ci laa bindee président conseil constitutionnel ngir daal mu sàkku ci moom mi tamit euh, mu daal ñu may ñu amaat beneen tirage ndax tirage bi nag moom dina baax ci ñëpp nekkul ne rek Abdourahmane Diouf dafa bëgg a jàll wala déedéet demewul noonu loolu tamit foog ñu daal ci xool. ndax amul kenn ku nga xam ne sax war nañ koo ñaawlu waaye tamit euh, dañu xool rek kenn ku ci nekk mën na am chance ndax deuxième tirage bi tamit ku ci nekk daal dina ci gis boppam conseil constitutionnel jamono ji amul benn possibilité interprétation ngir wax ni kat tirage au sort premier tour moom mooy wéy déedéet